te kii ñu jàkkaarloo nag duñ leen ko présenté parce que xam ngeen ko soxna Aida Saliou mu baax mi la grande voyante nga xam ni bokk ci famille Waly moom bañ naka ba euh, lu am ci famille famille jaaga rek xel yëpp day dem ci moom yaa booy maa ngi lay nuyu di la ndokkale métit bi nga xam ne bokk nga ci parce que euh, soxna moomi mi fi jugee ni nga juree Waly noonu nga ko juree maa ngi lay nuyu te di di la wax si gindigaal li bokk waaw jërëjëf di la fay rek di di ziar ñëpp yàlla di ñaan yàlla na fi gëj amiin ku ne mën nga ko jaal sa bopp waaw ndax moom yi moom yi àdduna la boo ne moom yi di nga ne Papa Thione mhm. boo ne Papa Thione di nga ne Jaaga waaye boo Jaaga di ne Waly Ballago te ku wax bugaan tamit wax presse kon dañuy wax ne rek li fi xew ñun ñëpp ko bokk ku jooy sa bopp nga jooy ku ku yuuxu di nga yuuxu mais kenn du ko yuuxu te buñ ko jooyee it dañuy jooy noppi parce que moom baadoo wut daal te nit bu baadoo wut deful yëfi baadoo bu bu dàqoo dem dañu koy defal ni mu ni mu mel waaw te moom it ku ko fay boroom ci ni mu mel yëpp day dal yëpp day ànd ak i teggin ànd ak i yar ndax nit ku am sutura la woon nit ko effacé wu la woon mm-hmm. nit koo xam ne la wanewul fëggul dënn waxul ne maay kii ba soraale woon na ne bis bii dina am mm-hmm. te saa yu ñu xëyee rek yàlla di ñu wan boppam mm-hmm. waaye ñun ñooy bañ a nangu waaye ku mu dal ci sa kaw rek di nga nangu nangu gi nag mënut a weesu lii waaw fi moom i joge ak fi suñu borom yóbbu te ku nekk am fa kër am fa néeg am fa appartement te mooy kër gi wóor waaw nañu koy sóor moom i wane na ne tey yar baax na waaw moom wane na ni doon responsable nekk xale jaadu na mhm. yaay la mhm. bàyyi fi njaboot njabootu moom mi nag dafa yaatu mhm. ndax da jël njabootu jaaga waaw jël njabootu boppam ñaari njaboot la fi bàyyi kon njaboot yi mu fi bàyyi yàlla ci yàlla teg loxo waaw euh, jaaga yàlla na ko yàlla may xolu muñ parce que mi ngi muñ tey loo xam ne ku ko rek da nga koo waaw man dama dama ñàkk am ci yërmande yaay ba xam ne tey am na lu ne ci dënnam dëgg la mais ci yar bi ci moom ak gore gi te ba jaaga nag baa doolu waaw waaw waaw éducation boobu bi mu ñëwee suñu yaay jaaga mu ni Wally sek eh, kenn ñàkkul yow yaa ñàkk ndax moom i yow yow la jur man sa maam laa ba loolu sax jooyloo Wally eh, kàddu yooyu naka nga ko dégg waaw xam nga taw bu baax mooy nday taaw mooy nday surtout taaw bi nga xam ni fexe na ba maîtriser. Mhm. waali ñàkk na jaaga ñàkk na askanu Sénégal gépp ñàkk nañ mhm. ndax waali doomu àdduna la man cër bi ma ci am tey boo xoolee da nga naan moomi la ndax eh, kaay ma jur la dafa metti ci ku ami mbokk ak fi jamono toolu te waali ku ne bëgg koo jur waaye ci yaatalub moomi la ci ku ne amee cër man cër bi ma am maa ngi ko koy sante ndeysaan maa ngi ko koy sante bu baax waay wala def maa wan Seydouna Mouhamed ndeysaan te nit ki bu lay wan yeneen bi dana ko waxtaan ak mbokkam mhm. te xam naa ne moom it am na ci paar ndeysaan kon ñu ngi koy ñaanal yeneen bi nu ziyaare ji woon muy baytulaay xaram ak bëgg gi ñu bëgg Seydouna Mouhamed yàlla na ko teerul boppam ci àjjana firdaws waaw waaw jikko yi moomee ñu bëri wax nañ ko démb boo ñëwee ci enterrement ba yoof da ngay foog ni sax moo doonoon jouru dëj bi parce que nit ñi autorités yi ñëw nañ politiciens yi a yi ay nawleem ay xaritam ñëpp ñëw fa ba keroog dañoo mujj sax tëj buntu yi parce que jigéen ñi est-ce que jarul ñu roy si ku mel ni moomi mii nga xam ne am na moyen yëpp pour pour nekk fi ñi nekk si réseau yi di def moom mënoon na ko def parce que am na média ah, jëkkëram nit ñi xam nañ ko papaam xam nañ ko rakkam waali xam nañ ko teewul euh, c'est une femme discrète maanaam jigéen la bu nëbbatu effacé wu euh, est-ce que jotul ñu mel ni yéen aussi ngeen di jigéen ñi nekk si réseaux sociaux yi bëgg ko utiliser def ko wàllum yàq ak wax lu ñaaw waaw dama ne lu waaye am di nit am na bërigo di dégg ci yar bi la rek yaay ju baax may wax chaque jour rek mooy ñëwaat ndey ju baax doom ju baax dëgg la de ndax doom joo rek boo boo xoolee doom rek xool ndeyam te ku xool Kine Diouf Diaga xool njabootam amul looy laajte mhm. loo ci gis ci yar moom la waaye loo ci gis ci diine moom la waaye loo ci gis ci yar rek day topp nit mhm. yar maa ngi ñaan daal ki a ju waaw yal na ko yàlla may ndëgër laa macha allah yal na ko yàlla lafal cat amin njabootam gi yal na ci yàlla teg loxo ak mboolem jullit na ko ñëpp ñaanal te ñaanal yàlla bu ko cat jiitu macha allah macha allah yal na ko yàlla lafal cat jërëjëf yaa la koy jaalewaat baax jërëjëf sunu yaay ma bëgg na ahabbani li wajhi maalika zaman noo ngi ñaan guddi démbam gi njëkk fanaan muy awwalul yawm fil qabri mu daje yërmande yàlla daje njëggal sa borom ñu tàbbal ko ca ca ca àjjana yi dana kawe sa bokk yi nga bokkal seen tubaay su suba ba léegi ñu ngi woote ñëpp ngi jóge Tuubaa ngir jëm si ci gis bii ndax waxuma sax sonn moom waaye moom mii da ko jëflante ak moom ndax kunti ma sa dégg aw gis ci sol la dàllam ñëw bokk koog noo ngi ñaanal nga mottali sa yéen noo ngi ñaanal nga yeggale li nga bëgg a liggéey Sëriñ Tuubaa sëriñ Omar mii ba sëriñ Youssou wala sëriñ Mamour mii doon wax rek koo ci yebaloon mu doy sëkk wala sëriñ Cheikh Mbacke doy na sëkk foo yebaloon Cheikh Mbacke dafa demal wala sëriñ Baara Gaye rek bi waaye nag xam ne sëriñ Mbacke nga bëgg ci sa xol ndax xam nga li mu def ci yow fi mu la féete nga ñaanal mbooloo mi fi nekk ak njaboot wéral leen yàggal leen may leen ñu jaar fa seen wajur wa jaaroon ba liggéey luñ toll dafa am lu triste lu mu nettee léegi dafa am benn xale boo xam ne fii la fanaan bi président ñëw nuyu ko ko xamoo ma de mun na ko déedéet mun na ko soxna moom yi moo ma fayal jàng ba ma am baax mun na ko foo ko xamee mun na ko dafa nekkoon ci benn supermarché bi jënd ay bagages ma koy jàppale bagages yi ma gis mu gis rek ma koy jàppale nee na mun na ko yow loolu defi ba jàngoo ak âge bii nga toll ngay roñ ay bagages mun na ko sama waajur moo amul lu ma fayal ma ñëw di daan sama doole mu ne ko su ma la fayee na ko dugal di ko jàngal ba mu am ba ci yoo xam ne xamu leen ci yoo na ko def di ko nu waaye nag dafa daan def ngir jàppale ko borom bi nun ñi ñëpp nga xam ne jege nañ président kenn ku ci nekk yaa ngi ay mbubu yoo ñëwagul te moom moo ko yëg ci boppam te defu ko dara lu ngir bëgg ñu gën koo jàppale gën koo taxaw kon nag ñoo ngi naan Mbàkke nga ñaanal ko ñaanal njaboot bi mu bàyyi sans borom sàmm leen teg ci ñoom ndox ba du yeggee ñoo ngi lay jégalu nag bu baax a baax kàddu waaye li ñu yéenee wax moom ëpp na li ci mbooloo ñu bàyyi ko incha allah. am dafa am rek lu may seede mbooloo kii fi teew muy sëñ Abdourahmane na ñëpp xam ne sëñ am bi boobu mel ni ñuy def ay sox bàyyi faay ci moom la jégalu waaye keroog biñ ne ko yaay Seex Alfa la ne ko demal jégalu ci xalifa sëñ Tuubaa loolu dafa maa marqué rek wax naa ko ci télévision bi wax naa ko fépp mais xoolal loolu xalifa bu toll nii mu leer na kuy Baye Fall mooy sa kilifa boo ko yilifee yilif Baye Fall yëpp nga ne ko demal sëñ Tuubaa transféré sa ab taali bi nag Cheikh Ibra Fall ko defoon ci sëñ Moussa ñu jox ko sama am nga defaat loolu mbàkk naa ko seet amin amin patron tay amin amin amin jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke président Bougane sax na lool lool xolam sedd na sëñ Moussa Mbacke xaar ma ba sëñ Mame Cheikh Mbacke ay ñëw moom tamit ak sëñ jotaay sëñ am suñu suñu daal wax na yéen ñu ci yoon bi jërëjëf Mbacke sagal nga président Bougane xelam dal na Mbacke kii si métti na waaye xelam dal na bi mu wëlbati koo yàq sa jëmm gi tedd ji nga koy fàttali sa mag ju baax ga Serigne Mbacke Mouhamed xelam dal na xolam sedd na soxna moom yëpp yàlla ko ko tedd gi sa jëm ñun ñëw nekkoon président Bocar sant leen ndax seen jotaay yi day wute na ko jotaay bi Serigne Mbacké nee na xolam sedd na xelal bëri naa dal Serigne daal jërëjëf Mbacké ñu ngi lay siyaare baaxul Cheikh Aliou Awa Ba moom la. jërëjëf Cheikh nañu may nit ñi ñu toog nañu dal nañu am sëñ Amirou Diop kay wuy ci sëñ bi sëñ Amirou bu dee yaa may déglu kay wuy sëñ bi am sëñ Amirou Diop bu dee yaa may déglu kay wuy sëñ